CFA bee tax géw lu am tey ji géwél yee ko indi ngeen jéggal ma waaye tey xew tey géwél yee ko indi géwél dema cere mariage ba di fa wax ay bal di gaaral di wax lu leen saf xale bi nag xale la nag te la jeeg la tamit dañ koo takk nag yàlla dëgg la bëgg xale bi daal di jël vidéo yaag photo yaag yëpp ni ko pang yàq xew ma maanaa raf prot amaanaa la mu jotoon a posté yëpp Snap la mu defar Instagram yëpp dindi ko ay géwél ay géwél yi ay Ouzo les vrais griots ay ana géwél yu géwél original yi ana ngu foo ne géwél dadaan dadaan fekk luy yàqu mu defar fekk ñu jubboowul mu boole war leen fekk ñu ànd mu fexe ba ñu àndaat fekk luy waaje yàqu mu fexe ba defaraat ko waaye tey lu am tey rek géwél yi lu xew tey rek géwéli la tas nañ këyru jàmbur ay ndëkkate liñ ma wax papa papa naar PDG ndëkkate daa gëm la mama naa raf prot que moox kee tas nañ moox mama naa 2STV yi tas nañ léegi nag remariage bi nag ak baag bu jamaa seenu jamaa baag yëpp fi may wax ak yéen divorce a taxaw ay ñun géwél yi ay géwél yi géwél yi ay eh, picc nañu ah yow barbiche barbiche ba merci beaucoup barbiche ba allah jaaraama jaaraama ay ñun fu jëm ak géwél yi géwél gi tas nañ këru jàmbur te bu ñu paree lu mu sedd sedd ak lu mu tàng tàng bu ñu yeggoon dinañ dugg ca salle de ba sangu ba pare buñ pare daal seen ginnaaw jëkkër këru jàmbur tey yëngal ko ba mu yëngu nii waaye papa ni da ngay assumer papa nit da papa nit day assumer ñu ñu dégluwaat. américain yi bëgg ay détails bëgg ay problème jullit la am na droit gis na keneen bëgg na bëgg na takk bi c'est tout jeex na. Ah. sama ñaari nit la ñu takkal ay wujju defuñu ko problème bu ñu la takkalee wujju kay. Ah, c'est pas la peine ñu mën ak yow bu ñu bees la wala la ñu fekk ñu door yor beneen jabar. léegi fulaani photo ah, photo rakk yi photo yu bees la wala. ñu déglu fii. photo yooyu photo mooy bi mu ko door a takkee ba mu def ay shooting am ak yëpp rek it umpalewul ak famille am dara ni koy gis na dafa yaru déggal famille am donc photo yi rek it dugal léegi te du dégg dégg déggoog famille am day déggoog famille am liñ ko wax bàyyi day bàyyi liñ ko wax defal day def bàyyi day bàyyi ah? waaw yaa ma dégg Yeah, allo non non allo. am soo may ma laaj quoi benn question. yii yii yii bokkul non yii yu bees la man li may wax mooy bi la man sama papu wax de bu dee après dafay sargal sama maam si la euh, def mm. bi wax mm. a mu def bi man ko ok léegi bul génnee bàyyi noonu mais ñun ñëpp Josephine famille am ñi nga xam ne jege nañ ko gis nañu lépp mariage bi ñu ak nekkul comme si biñ ko takk takk suuf la la dara man nag xam lu tax nit ñi ñuy wax seen waxu dof yooyu yow nan jabar doo ko def seeti doo ko lii doo ko dale loolu dafa am sens amul sens. ko. alors dama may ma laaj. Mm-hmm. Fulani xaaral kii laaj la benn question s'il te plaît. waxal Fulani Fulani ñoo ngi lay nuyu bu wér a wér. waaw wax nga sa xalaat dëgg la mais li ñu bëggoon xam mooy. parce que xam nga après fu nga gëm beeg yooyu noonu comme ñëw nga pour leer ak rek mu gën a leer ci Sénégalais yi dañu bëggoon xam photo ndax ci semaine bii la ko rakki def def bu shooting bi shooting yu bees la du ah. dégg du dégg seen papa yee bokk ndex bay kambi daas na dëkk mbaa xam ngeen ne maman naa raf prot à l'heure actuelle bi may wax a yéen mu ngi kër mamaanaa woykat waykat photo yi yi ma dégg li ma dégg photo yi démb la mais nañ ko def comme genre shooting maanaam dafa dafa maquillage sol yëre mariage am moom ak jëkkër ji rek ñoo photo photo yi maanaam defu réception defu defu réception léegi nag mama raf prot su may wax ak yéen nii ci liñ ma nàmpal rek laa di nàmpal nag mama naa def preuve fi may wax ak yéen nii mu nga kër mama naa woykat ci li ma dégg wóoruma nag waaye nag man tey jii moom nañ waxte dëgg nag géwél yi tas nañ kër yi de eh, useur foofu rek laa mën a yem géwél yii ay ana ana les anciens griots Et eh ouais, où sont les anciens griots Les griots qui disaient du bon. Les griots qui faisaient du bon. Non, non, non, non, non, non. Les griots qui disaient du bon. Les griots qui doon def lu bon. Lu xew tey rek c'est le c'est la griotte xaw ma griotte lañ koy wax xaw ma griotte de griotte bi griotte bee indi lépp de griotte bii griotte bee indi lépp griotte bii ay man griotte bi dégg naa daal moo fa nekk di wax ay bal naan naan mam produit yow la ñu takk yow la ñu bëgg yow la ñu teg place yow lañu wane teel a carax du si di génn dégg naa daal yow la fi nekk di ko wax mama naa produit tamit di ko gën a jàppale naan kon man la ñu wane mu naan xol yi dinañ metti man kese man sël mu naan kat yow la wane tey la caraxu duusi di génn ñun ay mbooti duusi dawuñ ko yàlla dafa def ne ne diw yow la bëgg yow la ay des griottes ay griottes bii dégg naa wax ay bal wax ay bal xale bi nag xolam metti xale bu ndaw bi ma maanaa désestive yi xolam metti ndax xale la ndëkk yow mu defe woon sotig démb <laughs> <laughs> xam naa ne jëkkër ji da koo wax jëkkër góor ñi ay man sama papa ay papa tey coow coow topp na la di ay papa yaa def bës dala ay papa def ko bës dala xam naa tamit góor ñi xam naa dafa waxaa xale bu jigéen bi maman naa 2STV xamal ko ne tey day takkaat maman naa raf porot léegi doo leen boo leen live du ma leen yeggali dama leen bëgg wax da ngeen di toppate live boo leen fa toppatoo du ma yeggali wax dafa metti maa ñëw di leen fenal yii fen yu rëy te ma jële ko fu wóor dama doon wóote da gisoo léegi daa ko pon live rek taalaat ko da ngeen di toppate waaw toppate leen mën a wax léegi papa naa PDG daa wax maman naa 2 day takkaa tey maman nag démb maman naa 2STV maquillage dem ca coiffeuse ba ca lii ba nu mu tuddati kii waxoon nañ ma ko de te mu defoon choc bi coiffeuse bu mag bi te mu defoon choc bi ay waay dimbali leen ma waaye bindalee ma tur bi coiffeuse bu mag bi defoon choc bi si màggal Tuuba bi ay waay bindalee ma choc bi waaw kàññe salon moom la dem ci tëkkër gu ci tëkkër góor ba si tëkkër góor gi xaw ma bu bu bu bu lii bi bu ngor bi dama fàtte daal fan la ci bu ngor bi fa la defaroo pare ah te maa noppi maa ngi waxati rek ka ko ka ko ñawal yére bii mooy ka ñawaloon doomu doomu woykat ba mu maquillage ba bañ mu def ko shooting nag comme genre shooting mariage shooting la ko def mariage shooting mu def ko fa tey xam naa ne nag du ñàkk dafa am lu mu dégg moom maman naa 2STV yi tapote leen live bi léegi nag tey ba géwél ba ay ay griot ay la griotte noonu lañ koy waxee di ay la griotte léegi nag la griotte nag toog pa di wax ay bal waaye géwél géwél bu góor bi tamit dégg naa la mu wax dégg naa la mu wax nee naa kooku yónnee ma vidéo bi nee na ma loolu kenn naa yor vidéo bi waaye dina tas géwél bu góor bi borom gémmiñ gu yàbba gu wàcc ko borom gémmiñ gu tooy géwél bu lappax bi géwél góor bu lappax bi dégg naa wax ay bal xam nga ñoom CFA la ñuy jàmm ay CFA daa dee wax ay bal wax lu ko saf lu ko neex léegi nag dagg-daggee ko yónnee ko ma maanaa 2STV ma maanaa 2STV daal di déglu yëpp yéen a ko tudd de mu dégloo nag mu daal di jël nag vidéo ya mu defoon démb vidéo ya mu defoon démb ak papa naa lee mu dugal ba mu dugalee nag jëriñ mel ni mbàccum gett naan bërërërërërët bërërërërët ñu naan mën naa nekk ak mënul nekk léegi nag mama naa raf prot dem sinabam yam fa duggaloon sànq dem leen sinabam xool dinañ lépp dem Instagram dindi lépp dégg naa nag à l'heure actuelle fee la virage ndekete papa naa papa naa PDG toxu la virage foofu à moment actuel fee ca virage yëngu na de boo moytu de takk euh, euh, sëy tey fase tey mooy am de sëy tey tas tey moo gën a xeeñ léegi nag ma maanaan ma maanaan 2STV ndek ah ndekete hmm, ndekete dafa jógaale hmm, ma dégg bari na de sama papa dama munta sori laa ilaaha illallah matu trois heures du temps kay sëy bi bu amee deux heures du temps ci dem ay waay waay ku may dimbal ci kaa kaa bi kaa bi yëg na sama yuur yi ay waay kuy kuy def demande ma jël la waay wop wop wop wop wop wop ay waay waay waay kuy def demande waay mu dimbali ma waay kaa bi kaa bi luur na si man de wop wop wop wop samay nelaw mujjee naaw laa ilaha illa ay man géwél yi ku def demande wop wop wop wop wop wop xaar ma jël faami